baax waaye ñu dugg ci benn thème li mhm. liñ doon waxtaanee démb rek. ci euh, li nga xam ni mooy euh, bi ñuy dem. Mhm. dafa nekk loo xam ni vraiment dafa soxal askan wi soxal na papa yi. soxal mhm. yaay yi soxal soxal xarit yi. surtout parce que dañ ne léegi xaritoo amatul. dëgg la te euh, bu ñu demee tey ba sa xarit di la weer. ñu dem tey ba sa xarit Khadija. xàmmeetoo li nga xam ne moom nga koy dénk ci ay secret. kooku daanaka nekkatul xarit. tey yu ci bëri ñu ngi koy yëg ci nit. ku koy mën a génnee mhm. xarit rek moo koy génnee mhm. te bu njëkk dañ ne woon xarit bu mu pikiroo nga naan fay doon waaye fi ñu toll nii foo pikiroo ñoom dañ lay ëpp pour nga gën a wàcc liggéey fa lañ koy jàpp rek xaritoo est-ce que am na Khadija amitié euh, bon même bu amee aussi c'est très rare si si jamono bi ñu nekk nii voilà parce que tey jii nii da ngay dégg sax nit ñi ñu naan mhm. méfie-toi des inconnus man dama naan inconnu jarul méfier wu parce que ku la xamalul dara xamoo ko xamula mënu la def lu la gaañ ki jara méfier wu mooy ki nga xamante ni xamal na la sa lépp xamal na la sa biir xamal la sa biti mais tamit Sofia lenn daf si am tey jii dañuy bëgg trop di di forcer amitié. surtout surtout voilà di forcer amitié di la fa nga xamante ni euh, dara nekk fa mhm. intérêt xëy na da koy lal mhm. Sofia day génn tele wala Sofia am na xaalis. Mhm. wala Sofia rafet na wala Sofia am na niveau de vie bu baax. il faut ma fréquenter ko waaw boobu intérêt la waaw bu mhm. ko intérêt la lay rek lu ko yàq dafa yomb. Mhm. parce que loolu boo ko ci gisatul wala sax boo demee ba fréquente ko nga waaw da ngay da ngay yàq. e c'est très important ñuy mën di ràññee xarit. àndandoo voilà parce surtout parce que nit mën nga am connaissance yu bari. mais du duñ doon say xarit say connaissance lañ. mais xarit moom je me dis boo demee ba koy woowee benn nit bu ah. bu spécifique non am na ay valeur yu bëri yum la war loolu moom am na moom mais mhm. Khadija mhm. dama am lu ma seetlu ci li nga xam ne mooy jamono ji parce que mhm. ñun ñun en fait ñun gis nañ lépp xam nañ lépp dem nañ fépp donc euh, dañuy am ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy forcer amitié bi comme ni nga ko tudd léegi Khadija yaa gis benn Sofia boo xam ne day gis Khadija tey forcé ak moom amitié ci li muy forcé ak moom amitié boobu noonu ayca ñu jël ko ci ligne bi ñëwaat allo allo allo allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. chéri noo def. maa ngi fi. waaw ah, yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. noo tudd ak fan nga ñu woowe maa ngi tudd Mariama maa ngi wootee Potence. fan si. Mariama daw na di Mariama fu jëm. Mariama bul daw bu tàllal. ah mënoon ngaa rester rek. ñu waxtaan ah, ci amitié waaw mais def leen ni moom 88 628. 28 14 13 mën a participer ci mbégte ak tarang Khadija. Mhm. léegi euh, sama gars dañoo baax torop ci sama meilleur ami. Mhm. te duñ la fréquenter lu dul 3 4 jours. une mhm. semaine. ñoo ne yaa gën ñëpp. dëgg la que du ñoom aussi ñoom ñooy teg seen bopp boobu coono. parce que bu njëkk xaritoo. ñu ko doon tànn ci li nga xam ne mooy juddoo ci koñ. ngeen màggandoo yaroondoo cheminendoo doxandoo lu bëri defandoo lu bëri. peut-être ñooñu dina di nga mën a xaritoo ak ñoom parce que fi ngeen jaar la. ngeen mën a xamante jikko di ngeen a peut-être diggante ay ay parce que mhm. en fait des fois day nekk voisinage boo xam ni xëy na lu bëri de ciy juddu. Mhm. moo tax ngay mën a am confiance ci mhm. ñooñu nga xam ne ñoom nga war a prétendre wax ñooy sa xarit. mais jamono tey jii comme ni nga ko wax rek y a trop d' intérêt. ci gis naa la tey xam naa la peut-être ce niveau de vie baax na dama koy fréquenter def ak moom xarit te la plupart Xadija li ci gën a garaaw. ñooñu di la ñuuxu ba ni gënal nga gënal nga leen seen ndey ak seen baay. tey jii ñoom ñoo la dàq yàq ñoom lu ñuy ñëw ci yow lu dul pour découvrir la xool sa vie mhm. xool ni ngay doxee xool ñi ngay fréquenter ba ci sa jëkkër sax des ñu mhm. xool ni yow mi tu es mhm. dans de très du ñu def lu dul du dugg rek daal di lay jéem a yàq wala ñoom ñu jéem a xool fu ñu amee ban rek bu mën fa toogee ana xaritoo Euh, man je li may li may wax chaque jour euh, nit da am ay xarit man tey jii nii am naa ay xarit yoo xamante ni xëy na ñooñu laa màggandool. Mhm. on peut rester six mois sans ton mais saa ñu waxaatee saa ñu waxaatee rek ñu nag man ak ñoom damay trouver ni que xaritoo bi mi ngi fi ba tey. Mhm. am na ñoo xamante ni aussi mën nga leen fréquenter benn sa une semaine. xëy na nga gis ay jikko yu la doy ci ñoom nga fréquenté leen ngeen mën a échanger parce que da ngeen di compatible ci yu bëri mais foofu ba tey bu ñu wax xaritoo foofu nañu nañu jàngante la ba tey parce que boo demee bay woowee nit xarit comme ni nga ko waxee da ngeen di yàgg euh, ngeen màggandoo dëkk ci même koñ euh, nga xam ay parents mu xam say parents la plupart du temps noonu lay demee ñun ñi ñu xamanteel bu yàgg yaa cinq euh, dix ans ah bi ñuy am sax dix ans naam six sept ans ah, di màggandoo ak ñooñu euh, tey jii mën nañ leen woowee xarit man je prends mon exemple am na ñoo xamante ni ku ci mel ni ay Khady Sarr ah, ay euh, waaw madame Wele Euh, ay nit yoo xamante ni la da ngay toog presque dix ans wala nga toog presque as ah, maanaam dix ans sax Sophie mm-hmm. nga toog presque <laughs> dix mois à voir euh, un an parce que jot tamit da ngay gis ni que dafay manqué mm-hmm. parce que bu bu bu buy booy avancé ci dara Mm-hmm. boo nekkee ci dara da ngay ñaan avancé ci. Mm-hmm. jot moo dul am sax di ngeen gëj di déggante mais tout le temps ñooñu c'est des gens yoo xamante ni boo amee problème boo leen fëggee. Mm-hmm. ñoom dañ fiy nekk. par rapport ak ñi nga xamante ni xam nga leen nii nii nii nii yéen a ngi fréquentante. Ah, ñi nga xamanteel euh, récemment loolu amitié boobu du dëgër. waaw parce que à chaque fois day am lu muy lal. dëgg la mënagul parce que ku ci nekk da ngay calculer sa morom tey Khadija kat damay xaritoo moom mhm. parce que du ci bëri ah. mhm. damay xaritu Khadija parce que en fait dafa am fréquentation yu baax. yoo xam mhm. ne moom mën na ma fa may ay far wala waaw mën na ma fa jëriñ tout ce calcul maintenant. mooy li ma wax sànq rek naa am koo xam ne tey dina ma fajal sama gàcce moo tax nu ma mënti def rek dama naan Khadija nii kole ko ñàpp nga gënal ma ndey gënal ma baay gënal ma lépp loo wax ma ni loolu la xam nga nuñ lay def kuddu bu tàngee ñu utiliser la. Mhm. bu seddee ñu tegee la la jël seen loxo. dëgg la mbaa ñu def la échelle. Mhm. buñ bëggee jàll fële. jéeg ci kaw dem buñ paree pousse la na leen. am la plupart du temps fréquentation yu bees yi. Mhm. looloo koy waral surtout moo tax tey jii nii ku nekk sa bopp dala waral gën a doon xarit. tey jii loo bëggul. wala loo xam ne lii kat buñ ko yëgee. mu mhm. ñaaw man de loolu laa wax yow mi nga xam ne yow yow yaay nit ki yow personnellement mhm. say say ayib ak say yu baax ak yëpp dencal ko sa bopp ndax di nga wóolu nit wax ko sa secret wax ko ni ko démba mhm. nii laa def lii ak lii lii ak lii loo xam ni ma mën naam sax du neex yàlla waaye peut-être bëgg nga confier mais yow garde ko sa bopp parce que ëllëg ci biir doo toog kenn du la weer ku la xamalul du la yàq ku la du la yàq du dëgg la wala nga jël sa jëkkër def ko xarit baa nga jël sa jabar mënul weesu confident mënul weesu ñaar wala sa yaay bi la jur moo la mën a nëbbal say ay dëgg la ba ci sa famille sax dañ naan la mm. sa frère wala sa sœur am na mm. yoo xamante ni sax bu ko ko wax ko wax parce que mm-hmm. bu ko ñu yàq la ay keroog ah ay <laughs> ba pare li ci gën a garaaw Khadija mooy Khadija bàyyi ma wax la lii tey mais bu ko wax keneen de ah comprendre nga lii laa lay wax yow yow nga ñëw ne Sofia bàyyi ma wax la lii mais bu ko wax keneen mais kooku mooy ay ku am xarit kooku am na xarit. am na xarit dañ koy tasaare mieux vaut nag euh, sa li nga xam ni moom mooy sa yëfu bopp mm-hmm. yow nga gardeel ko sa bopp mm-hmm. boo mënul wax sa jëkkër comme ni ma ko waxee léegi mm-hmm. gardeel la sa bopp moo ëpp sécurité yëpp parce que duñ ne la yaama ne duñ mën ne maanal parce que fi ñu toll ni dëkk bi jaxasoo na jaxasoo koo xam ni sa xarit sa xarit sax léegi ñoom ñoo lay teg dil dëgg la ñoo lay teg dil ñoo lay sàcculu ñoo lay booleek ay agresseur ñoom ñoo lay tegal plan yoo xam ni danga naan lii mënul nekk te boo jooy ñoom ñoo ñëw fompale la say rangooñ ne la noppil te dil yooyu yëpp ñoom la est-ce que ñoo ñooy xarit Khadija waaw ñooñu moom mënuñoo nekk ay xarit ah xam xamoo li tax affaire bi di métti lu tax muy nekk mhm. choc mhm. c'est-à-dire kiñ kiñ naan la kii la mhm. kooku nga dul fooge sa àdduna de ko danga naan mënoo nekk tey ji nañ jël ki ci ligne bi ñu ayca allo allo oh na waaw ah, ñoom lu ñuy fu ñu jëm ah tey jii nii li tax mhm. affaire bi di métti li tax mhm. muy doon choc mhm. mooy dañ naan la euh, diw mii moo def lii nga naan kii mënul ne kii fi ñu jaar ma ak moom doo ko mës a foogee doo ko ko mës a foogee moo tax muy nekk choc c'est très important nag ah un conseil qu'on donne ah, naam sax matuñu bay joxe ay conseil matuñu de waaw mi ngi noonu mais tey jii nii daal loo xam ne loo xamante ni bu ko benn nit déggee nga ni wuy sama nay téye ko pour yow rawatina nag nga nekk xale nekk ci buumu sëy nga ni da ngay ut ay xarit Ah. lu la fa dal yaa ko teg sa bopp. borom ñu koy waxee borom caq du du du xeex ak borom baatu neen. waaw nit ñi lu ñu wax rek moom tey du ma nekk ci sëy mhm. di wër Khadija àndandoo di wër mhm. ummi àndandoo di wër faatu àndandoo ñoom bu ñuy génn di baali wala ñuy dem resto ñu ne ma kaay ñu iriwaale ma man bu ma tàggoowul sama jëkkër lu ma fa dal man la. mais mais mais ñooñu du ñu bëgg sax yow ci li nga nekk ñoom ñu ñu ñu kii ci duñ ci d'accord en fait. parce que dañ naan yow yaa ngi sa foyer di gérer. Mm-hmm. ñoom nag fu ñu toll nii euh, mbaram bira tali bi la ñuy def. mbaram bira moroom la ñu bëgg. mais ce que yow tamit doo jéem a yeew conscientiser sa bopp mm-hmm. un peu. Mm-hmm. pour mën a xam ban barrage ngay yem ak sa ñenn yenn àndandoo yi parce que munoo ñàkk àndandoo. dëgg la if te boo moytuwul sax ñu jaay la ay faux rêve. cest ñu wax la benn vie boo xamante ni ñu ngi koy dund. te araam kenn dunduñu ko tey dañ lay gëm loo benn benn affaire boo xam te ne danga naan man est-ce que du ma génn ci sama sëy bi sax mhm. sama sëy bi ça en vaut la mhm. peine fekk c'est pas vrai fekk na dëgg la de allo allo allo oui allo salaamaaleykum yaa ngi si jàmm sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar noo def waaw maa ngi fi sama waa yaa ngi si jàmm yokkal voix bi tuuti xanaa da xiif njogo na koogoo waaw man benn kii laa bëggoon laaj quoi ayca ñu ngi lay dégg yokkal voix bi tuuti. waaw son bëggoon. son nga bëggoon. waaw ban son. waa Seck laa yow noo sant. Seck maar menn mi. noo sant. Harun Jamu Ba. ah. Ba Ba. Ba pël yëpp a bëgg Waly Seck tubaarkàlla yàlla def loolu. mais loolu rek nga bëgg yow. bëggoo leneen. nga bëggoo leneen. ah ba nee di ma. Pëlier da gën a neex Sénégal ba séeréer yi jàpp la yow. waaw. allo. Ndefaatu jaaga noppal na la <laughs> waa régie euh, bu baaxee ñu kaleel ko ki nga xam ni mooy Wally Ballago Seck euh, ci li nga xam ni mooy euh, musique bu baaxee rek ngeen bégal ko noonu noonu sinon bu baaxul on continue mm-hmm. avec le thème xaritoo xaritoo est am na ayca ñu daal c'était Wally Seck dans Taxi Love di di di nuyu encore une fois taximan yi ah, en euh, transport commun yëpp bus yi tata yi particulier yi ñi nga xam ne ñoo toog di déglu seen oto euh, ci li nga xam ne mooy euh, rajo bi ñu ngi leen di nuyu encore une fois di leen sargal bu baax waaye du ñu def lu dul demat au niveau de la régie laal une page de pub daal di ñëwaat ci mbégte ak teranga tout de suite